ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew رؤوف واركب بنا ربي يا خيارا تكرمو برؤية الودية روف يطاوى صل وسلم عليه بسرمة أبدا mu ne ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa loolu yàgg lool ñu ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi lool dolli la kattan dolli la faydu mu ne ndax kii nga xam ne moom nga toog ci hadraam dafa bokk ci mbëri yàlla ndax bi mu ubbee ko xam xaqiqa tuuti da nga xam ne kii nar naa wax lu rëy ndax alhamdulilahi si tafdili yàllaahu xaq de waaqit yi xaq de waaqit yi yaa ya allah ko xam tuuti xaqiqa ci ngay xam ne kii nar naay wax lu rëy mu wax ne moom nag juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent tur wu nekk mu def ci xasida waaye boo gisee ni mu defee toftale bi tur wu nekk maana yim lamboo xaqaax yim lamboo maqaamu yi tur wi lamboo ak xeeti ñaan yi xeetoog tur wi moom la def ci xasida boobu le ba tur wa wala jeex mu jël beneen tur mu ne loolu mu def kenn mosu koo gis ba noppi nag mu dugal ci ay xeeti salaatu ala nabi ay xeeti bàkk yàlla yoo xam ne kenn mësu koo gis bu toppiin mu dugal ci xeeti ñaan yoo xam ne yemalewu ko ci njabootam dugal ko ci xeeti yonent bi yëpp dugal ko ci jaam yàlla yëpp nga xam ne kii dénk nañ ko jaam ci jamono bi muy wax nga gis ne bi mu ci teeralee nga gis mi mi yëpp bi mu liggéey ci yonent bi alayhi mu ne moom dafa wax ne dafa mas a benn téere gis ñu tibal yonent bi mu xeeb ko te yawaaqita tax mu ne ndax dafa gis kooku ne ku bind ne ci maami yonent bi sallallahu alayhi wa ci Aadam ba ca Abdullahi am na ci ñoo xam ne dañ daan jaamu xerem Seydi El Hadji Omar weddi ndax daf ne taxarahu llaahu min baxyin wa min xanatin min aadamil xutbi li yàqooti si nusumi daf ne la laabal na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax damir jooju ci taxarahu mu ngi dellu ci yonent bi sallallahu foofu la ko Seydi El Hadji Omar delloo ñu ne ko ku ko laabal mu ne allahu yàlla ñu ne Seydi El ci ban façon laabal mu ne min baxyin wa min anatin fi yonent bi jaar laab na ci jëf laab ci wax laab na ci wax lu naqadi yàlla laab ci def naqadi yàlla mooy jëf ju ñaaw ak bew min baxin wa min annatin ñu ne kan kan moo ci laab mu ne ñëpp min aadamal xutbi mu ngi jóge ci aadama mi xutbi ba li yaaquti ba ci abdullahi ñëpp a set ñëpp set mu ne loolu nag moo ñu jox fit ak yeneen ak yeneen amma jëmi Cheikh na Tidiane bu la yàlla dimbalewut boo watuwul mën nga ci gaañu ndax nim ci xuusee ak lim ci wax mu ne su ko defee kon kooku moom la ñu yàlla baaxee moom la wax léegi ci adaraam ñu ñëw ci kanamam ñëw bi nag mu ngi sababoo ci Alaaji Keba Touré nga xam ne moo teew daaw jéeg nga ne Alaaji Keba Touré ñoo bokk lépp ñoo bokk ci biir ñoo bokk ci biti kenn la ci ñun ñuy kenn lañ ci moom mu ne loolu nag ku ko xool sottandiku bi noonu rekk la demee moo tax ñu ne nag ñu ngi sant borom bi ci ñëw gi ñëw mu sababoo ci njabootu Alaaji Keba Touré ñu doon njabootu Seydi Alaaji Umar radiyallaahu anhu loolu yàlla na yàgg lool yàlla na ko yàlla gën a dolli dëgëral ne sunu siyaar bii yal nañ ko bari la lool jëmm ji toog Cheikh Mouhamadoul Bachir bacharahu laaw yal na ko yàlla bégal dolli koo bégal ci hadara bi ndax sagal nga Seydi El mu ne dafa gis benn audio ci benn groupe mu gis la ca benn xale bu ñuy wax Saxir Saxir Gaye. Modou Saxir Gaye moo ubbi groupe ba. mu gis ñu dugal ci. mu ne man mii maa doon jottali wax ja. mu ne suma habibu mi loxo ndox mu ñuul la. ndox mu ñuul la mën naa laabal mën naa setal te du soppeeku te loo ko waxi dégg na ko. mu ne fa tabaarakallaa muy wax joo xam ne lañ dolli mu doon istimdaad yoo xam ne nga xam ne kii fam tibbee moo wóor kon ñu ngi lay siyaar fa tabarakallah ñu ngi lay ndokkeel ci sa kanam nag indi soxla yëpp nag ci barke Mawlaaya Seydi El Hadji Omar radiyallahu anhu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne jërëjëf waaye am na benn woy ci samadu mu ne moom ci wàllu boppam mu ne wooyu wóole soo ko seetee mu ne waxta xasaayi may ñu tuuti yow mi yor micro may ñu tuuti waxta xasaayi na waxta xasaayi na anwaaran على عشير من راه موم عشير نان راه كون جابلا من راه ديك نوي فافتح قصاين انوارا ومعرفة على عشيرك من من راه كي داك لولي راه فانك جاب على عشيرك من فافتا وهبل قصائنا انوار اين بلير ومعرفة اندام بقم يلا على اشيريكا تسا بلزون بي من بلزون بنجاب من كوغلت دلات اندام بلير اندام بقم mu ne te nekk pilison mu ne loolu moo tax li nga wax jëmale li mu ci rasulullah loolu la tax mu wax ko faftax xasaayina anwaarin wa maarifatin ala ashirika mu ne fële mu wax ne wàccal बशीरती या रहमान मुबसिरतन अफदल खल्किका suma yaari bët yi de na nga ko wan afdala xalq ki gën ci sa binde fi hatta usahida ya rahmanu talhatahu mu ne loolu su amee maal bi saaraati mu ne xam nga asmaawul husna yàlla ak boppam ku ko xam duñ ko xam bisaati mu ne yàlla duñ ko xam bisaati ci jëmm mu ne yàlla soo koy xam danga ko xam bi asmaa yi wa sifaati yi asmaa ulaayi wa sifaati loolu de ci la xam yàlla buñ la kasfu kasfu mu ne kasfu yegg si wut ci asmaa ulaahi yegg si wut ci sifaat asmaa ulaahi ak sifaat loolu le fotoo koy jot waaye kasfu ak waani moom ci lañ lay moom lañ lay kasfu ak xajaay bi loolu le sulmaani yu xam na ko nooraani yu xam na ko मुनवाए मोम लिखो याले दिम बोले तेरे प्रॉब्लम में कोई खुमा केरी किरियो मोम लावे अखेर गया बीमारी मत वो बीमारी मत मन मस्त हो बेन तेरे येर फुट डॉलर निको कुछ बहुत से बोने अल्हम्दुलिल्लाह शी तब्दीली अल्लाह बाबा का एक सौ आठ रब तक मिलन मकसद ना lixtibaas xamu ci loo xam ne foo ko jumoo ci feneen doo ko ci gis masta seet benn téere ba man bi mu demee bay way siira mu ne siira ñëpp a koy wax ki mun naa wax lii kii wax lii kii wax la le xaj na xam na téere yum sukkandiku yum sukkandiku way def ko ci mu ne maanaam moom nit la koo xam ne ku kéemaane la de ku kéemaane la mu ne alquran su ko daan tafsir du amee téere mu ne ñi nga xam ne ñoo fi ne de déglu ku ne téere laa amee suy tafsir bu yegsee ci xisa dana leen wax ne yéen ñi am jalaal seet leen sara barab sàngam ñi am at atu nangam seet leen barab sàngam waaye moom du nga téere de suma baay man mi moo daan xame jukki jukki comme jukki alquran nii rek moom laa amee day jàng muy tafsir waaye su commencé ñaari waxtu laay xam lis bu jeex du ba dara mu ne yàlla kum dimbale nga am dimbale mu ne waa yow yàlla la dimbale de yow yàlla la dimbale nga dajeeg Alaaji Keeba mu ne Alaaji Keeba moom xam na ko de xam na ko bu baax a baax te it jaraloon na ko lu ne lu ne jaraloon na ko ko mu ne daara ci la newoon da jàng kooku ka koy jàngal xoolu ko mosta tar da jàng waaye mosta gàmmoo kër kooku la fii la daan gàmmoo si ki bëgg moom lu may wax yal na yàlla xuutalal la mu ne dafa am genn góor dafa lakkale woon fii ci dëkk bi malaanam yëpp lakk moom mii mu dem fa seet lakk gi ñëw xubbi bi néegam yëkkati ñaari xaftaan ak ñaari tuba yët ko xam ñu ko yëg def loola le ñeneen yëg ko def lool le mu ñëw ne ko man de sëñ bi lakk gi gën ci man de ndax malaan yi ma am nii mosuma koo mën a am te lakk gi mu ko yëg lakk li moo yàq dana la wutalal lu ko ëpp de fuuf mu ne asabru nag xend satmatil ulaa de bu la dara dalee fa ngay baqel noon bu lay ree nga ne noon bi la duma ree mukk ndax su ma waxee lu ma war ta wax wala ma wax loo xam ne sax xañ na war naa ko wax ndax yàqoo tax yàqulee tax mu ree ma waaye na sa xel day soppe bi nga xam ne nim la méttee loolu la leen noonu la ko méttee xaalam bi kullu ñi nga xam ñi leen xam te xam seen baay nim leen méttee loolu la leen méttee mu ne an noon yi nag am solo kooku mbokkam seytaane rekk la na nag yàlla nañ ci yàlla musal bakkan moo gën a bon bakkan inna nafsal amaratu bisoo boo yàqulee bakkan da lay waane moo ndax li leen nga ñàkk danga ko amaat soo ne déedéet bakkan na bakkan dikk na bakkan dikk na moo kon moo lay dugal da la dugal ba nga wax la dugut noonu le mbugal fekk la fekk yàqule ga moo tax boo amee tiis bu mel ni le ku dikk dala ndokkeel déglul ñaanam bu duxee bu waxee la duhut ñaan da nga xam ne ki la lim bëgg mu ne loolu la xam xamutoon li yàlla di dogal moo tax mënutoon a wax loolu mu fekk yooyu la amul solo mu ne yooyu amul solo mu ne ndax ñooñu le fa ngay taxaw wax ak ñoom soo roccee dara jox leen ñu bala amma subhanahu wa taala moo leen dàq defet moo leen dàq maye te doo ko jox dara moom nañ ñaan koog le li dem ak fu mu mën a dem yàlla delloo si ko mu ne lakk doom lay doo moo tax yàlla munul soppi doom la la doom nekkoon na doo moo tax yàlla munu ko yàlla mën na ko de dara taw ko te soo ko ñaanee mu may la loolu la wax buñ ko jagale kenn ne bu ñaanee mu nangu yàlla ku ko ñaan mu nangul la moo xam gëm ko moo xam gëmu la ko ki ko dàq weddi moo la dàq moom la dàq nangul ñaan ndax moom dafa am yaari tur benn bi ñëpp ci am benn bi ñëpp ci am loo mën a mën a julli loo mën a mën a julli yaa ki julli yéen a ci am muy rahmaan rahim mi nag xam nañu ko jagoo rahmaanu boobu le yal na ko jëfandikoo ci lakk gi jëfandikoo ci seen yaram yi rahim yi yàllaa ko man yal na ko def bi mahdi fadli wa joodi wa karami barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barkeb Mawlana Seydi El Hadji Omar radiyallahu anhu jërë ngeen jëf ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew